94 Walf Sénégal dellu si naan leen siyaar di siyaare képp koo xam yaa ngi topp suñu site bii di ah, seen analyse chronique yoo xam ne lañ koy defal saa su nekk ci réew ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar way leen di topp fal 94 Walf ah, Sénégal enquête bi daal lu muy gën di sori rek nga ciy gën di dégg lu yees nga xam ne tey jii Seneweb bu nu sukkandikoo ci moom comme ni ko ñëpp di defee lii mu waxaat indiwaat ko mu nekk loo xam ne dafay gën a lëndëmal xel yi bu baax a baax a baax a baax waaye nag euh, lu ci mën a am rek mooy boo xasee rey moom amul lenn loo mën a teg ci taabal ji pour mën a fal mbir mi ñaari bakkan moom boo leen xasee rey ñooñu ci lu mën ci luñ mënoon a nekk rek bàkkaar baak yëpp moom yow yaa koy chargé woo voilà te du fa mukk ci yow munoo wax a wax a wax ba mu wayef ci yow voilà fi mu toll yaa fi nekk yaa mën a wax ndax ñoom aji dem gi moom dem na mënutut a weddi moom voilà li nga leen waxal nag voilà yàlla xam allahu ahlam daal waaye lu ci mën a am daal mooy ray moom mooy dernière chose ray moom boo ko xasee rek jeex na amatul leneen loo mën a wax lu dul yaa rey voilà li war ci yow ñu def ko amul leneen wala ñooña luñ mën di def voilà ñooña dem nañ mënuñoo weddi ndax yaa fi nekk di wax wala leneen li ci des tamit mooy jaxasale jaxase xeli nit ñi lëndëmal xeli nit ñi waaye en tout cas daal ñooñu luñ mënoon a def ci ay bàkkaar def nañ ko wala defuñu ko maanaam lépp ci yow lay dellu si waat voilà parce que rey moom buñ la ko xasee def moom kenn bàkkaar boo mos a am rek bàkkaar bi ci yow lay dellu voilà kon euh, loolu euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax euh, mbir mi yemagul fii parce que xam naa ne enquête bi lu muy gën di dem rek voilà parce que nag xam nga nit ñi seen i xel lañ yor voilà ni ñi seen i xel lañ yor te chaque jour saa su nekk lii di am ne bëgg nañu am lu leer nañ ci seeni nopp wala am na ñoo xam ne moom mbir mi fi mu toll nii sax dañ cee mujj doyal ndax euh, lii nga xam ne Seneweb génn wan na ko waxaat ko ci daanaka mën naa ne am na ñoo xam fi mu toll nii mbir mi moom dañ cee mujj doyal ndax xam nga aji dem yi dem moom voilà ki leen rey ñëw taxaw osé di wax naan lii ak lii di tudd borom ñaari tur yi voilà te dem nañ mënatuñoo weddi wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne ni information bi ñu doon topp sax fi mu dool nii dañ cee mujj doyal sëk sëkk sëkk sëkk sëkk voilà daanaka mën naa ne soxlaatul eh, di xam lan moo ci xew ak ya ci aju parce que li ñu bëggoon a xam-xam nañ ko mooy ki rey ki jàpp nañ ko voilà léegi yeneen yi si des ñëw na wax na wala léegi génn nañ li mu wax léegi li ci des moom mooy nan dem rek wala def lu yoon wax jeex na wala léegi nag eh, enquêteurs yi nga xam dañuy continuer di enquête ñeneen ñu ci mën a bokk ñëpp nañ leen feeñal voilà ñu wax mbir mënam demee beneen bi ci des tamit moo di moo tax euh, ñi nga xam dañuy def réseau ñi nga xam ay man lañ nekk ci marché yi euh, téléphone yu yomb yi leen di jaay nañ ci bàyyi xel bu baax a a baax nañ ci bàyyi xel boo ko mënul jënd sax boo ko mënta ñàkk bañ a jënd sax moo gën boo ko mënee ñàkk bañ a jënd moo gën voilà parce que xam nga gis nga ko dèjà ma nga rayee nit fële na jël téléphone bi yóbbu xama fan ci marché Ocass jaay ko fa xama loolu nekk na loo xam ne ni dangereux la waaye nag ñiy jënd duñu mën a xam mais moytu leen ñi nga xam dañuy ñëw di leen jaay ay yu yomb yoo xam ne daanaka mën naa ni boo xaymaa njëgg la muy jar da ngay xam ne kii voilà y a quelque chose waaw dafa sàcc téléphone bi wala mu def crime wala mu def benn scandale ñëw di la jaay téléphone bi. kan yéen ñi nga xam ay jaaykati téléphone ngeen di leen moytandiku téléphone yooyu nga xam ne ni wax dëgg yàlla liñ koy jaayee dafa yomb te téléphone boo xoolee valeur am dafay ëpp liñ la koy jaayee. waaye bëgg a business bëgg am xaalis ba tax ngeen di def dee leen moytandiku loolu bu ba a baax a baax ndax gis nga ko enquêtes yi chaque jour rek ñu ci indi lu bees voilà gis nga fa mu départ voilà ñenn ñi nag tamit wax ni voilà bi mu ko defee ba dafa jël téléphone euh, euh, dafa jël téléphone euh, Abdoul Dabala bi sànni ko ci canal loolu yëpp voilà ay wax la xam ne ni mu ngi mu ngi ci internet bi xam daanaka euh, Sandiogou dafay wax wax joo xam ni wax ju am solo la nee na Sénégal moom yaakaar naa ni euh, booy def enquête juróom ngay sori euh, da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay dugg da ngay déglu nit ñi rek nit ñu ngay déglu boo déglu nit ñi rek da xam bu baax a baax li xew voilà mu joxe misaal ni maanaam tey boo ñëwoon tey di laajte son yi bu voilà dana kenn dina jóg ne la son yi bu xam naa ko waaw son yi bu fii lay watoo sax son fii lay ndekkee son yi bu ñooy ndekkee ndoo voilà sony bu moom moo sony bu ma xam ko voilà léegi te yow dafa ñëw rek ne la sony bu laay laaj xamoo lu muy doyee sony bu voilà c'est parce que mooy sénégalais yi ñoo mel noonu voilà sénégalais ñoo mel noonu dañoo dañ kumpa voilà dañoo bëgg maanaam xam loo xam ni sax voilà euh, euh, euh, waroo koo xam wala maanaam bëgg di xam loo xam ne ba bëgg di ci yokk loo xam ne nii voilà loolu yëpp c'est parce que lu mata moytandikul la voilà dëgg la àdduna lañ nekk yu mel nii bu amee day triste yu mel nii bu amee nit ñi dañuy bëgg a xam li ci xew lépp dëgg dëgg dëgg waaye xam lépp du yomb ci ñun ñi nga xam ni ñoo ci nekk wala bëgg koo traité dafay am yoo xam ne ni du lu ñu war a wax am na yoo xam sax du war am na ñoo xam sax ñu ngi ñu ngi saboté euh, Seneweb naan est-ce que waroon na mën a génne lii voilà ñenn ñi tamit ne wala comme enquête bee fi tollu kay te daanaka mën naa ñu bari doon sukkandiku ci euh, Seneweb pourquoi pas waru ko mën a génne. waaye gis nga ko bi mu ko bari na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla pare nañ fi mu toll nañ ci information bi dootuñu sax déglu information booy xool dootuñu ko topp dootu leen jaral dara parce que maanaam dafay am yoo xam ne ni boo xasee am ñaari nit ñu dem ñoo xam ne fi mu toll nii daanaka ay aji dem lañ ñoom mënutunoo ñëw di weddi voilà dèjà moom bëgg naa woyefal penam bi wala maanaam bëgg naa woyefal dee gi te dee moom benn woyefu ci ah léegi nag dèjà ñoom ñaar ñoo nekkoon xam nga xel yi day daal di commencé di daw moo tax daal vraiment vraiment vraiment wax dëgg fa yàlla euh, war nañu xoolaat bu baax a baax a baax a baax euh, fi ñuy teg suñu tànk voilà nañu nañu bàyyi xel bu baax a baax xam ne adduna bii ñu nekk nii euh, nit ku nekk li muy am da koy liggéey voilà nit ku nekk li ngay am da nga koy liggéey nit ki bul salu bul iñaan voilà bul gis ni maanaam yéen ñaara tolloo woon raw na la rek nga bëgg a salu bëgg ko xam nga sàkkal pexe loolu baaxut parce que dèjà nit ñi dañoo fàtte ni maanaam gis nga nit ki moom lu mën a nekk ci lu mën a nekk mbon mbon gu mën a nekk buñ ko xasee rey rek ay bàkkaaram wëlbatiku na ci yow voilà ke ko rey mooy yenu bàkkaaram yëpp moo koy yenu voilà parce que moom ah, dañ koo rey voilà euh, kon yaakaar naa ni euh, euh, mat na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax voilà déegu mel nii nag li tax nit ñi di ci wax voilà ni mu demee la ak ki mu dal tamit voilà xam nga boo xasee siiw nit ñi xam la am na rey yoo xam buñ la ko reyee euh, duñ ko wax benn fan nii rek koy fàtte noonu par rapport ak keneen ki nga xam ne ni siiwul xam nga voilà waaye euh, euh, nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax daal ci àdduna bi ñu nekk nii nit ki da ngay liggéey boo bëggee jariñu da ngay liggéey bul xeeb tamit li la yàlla di jox voilà chaque jour fi nga toll tamit xamal ni Euh, toll nga fa amoon na moment boo xam ne toll woon nga feneen foo xam ne ndax chaque jour chaque jour yaa ngi rek yaa ngi am sa jom yaa ngi am sa ngor yaa ngi xam nga sàmmoon teg sa diine chaque jour yàlla di la dimbali waaye chaque jour yaa ngi ñàkk jom yaa ngi wër wala koo ray wala yaa ngi wër koo xam ne yaa koy agressé wala waaw kan daal euh, xam naa ni euh, wax dëgg yàlla mi ngi noonu loolu ñu ci dégg nga xam ne ni daanaka mën naa ni nit ñi liñ liñ doon topp mooy information bi chaque jour ñu ngi xool voilà ñu ngi dem ci plateforme yi ñu dem site internet yi ñu ngi dem ci voilà plateforme yi nga xam ne ñu ngi wax ci mbirum euh, Abdoul Aziz Dabala ngir bëgg xam rek ndax comme li ma la wax rek nañ moom daal euh, dañ kumpa léegi nag gis nga ko tey kon mbir mi daal fii la euh, tolloogul waaye daal xam naan daal yéeme na daal